mbokk yi dal leen ak jàmm te ngeen abonné te like te partagé ci chaîne bi di Tivaouane 24 TV seenu diine ji seenu lislaam bi seen bi leen di jëriñ Tivaouane 24 TV seen bi dox saa su ngir dab seen bànneex xew mi am loo bëgg a siiwal moo xam programme la wala lu mu mënti doon jokkoo wala ak Tivaouane 24 TV ci numéro yi waxuma affaire tariqa waaye affaireu lislaam laay wax képp kuy jullit war nga foo fekk produit Jador nga di ko utiliser parce que beneen produit boo utiliser la ciy ruuse borom mën na ci jaamu yàlla waaye mën na ci def leneen it waaye xoolal Aziz ak Jador koo xamante ni lépp lu mu génnee ci liggéeyam mu ngi koy delloowaat ci jaami yàlla yi mi ngi koy delloowaat ci néegu yàlla yi bàyyiwul benn dëkk bàyyiwul benn ki këru diine bàyyiwul benn kilifa Aziz yàlla na yàlla sàmm la ñun daal da képp kuy jullit ñi li ñu lay ñaan mooy looy utiliser ti te j'adore am ko farata la ci nga utiliser ko lu j'adore amul nag dañ ko sib pour nga utiliser ko waaye lépp loo xamante ni produit j'adore la moom daa dagan ñàkk ko utiliser day xaraam